Salam alaikum la famille, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Alors n'oubliez pas de liker la vidéo s'il vous plaît, vous voulez faire des buzz like, c'est très important. Mangini buzzle voilà merci beaucoup Vous faites que may avez go la à right now c'est simple eh, merci alors avant de commencer la vidéo dama vais vous présenter ba tey sagesse ben film une série Vous avez ngi avez ay jouer am solo chaîne YouTube Baytil Atfal chaîne YouTube vous ngi description donc ay ndaw jouer vous avez appuyer la donc épisode yi mu commencé vous avez vous ko dama koy avez pour ngeen dem chaîne YouTube Atfal activer cloche de notification bi pour bu duggee rek ngeen mën see jot mu ngi noonu. dama fas yéene ñaanal Sénégal ñaan yoo xamante ni vraiment yittewoo na ko vraiment Sénégal yàlla nga am jàmm te mu nekk luy sax saa su nekk. Sénégal fi nga toll yàlla na nga ko romb yàlla nga raw say mas Sénégal tilim gi nga tilim yàlla nga gis ku la mën a sang ba nga set wicc solo la yëre yu rafet xeeñal la parfon bu neex ba ku la gis fonk la bëgg la naw la teg la sa place respecté la. yàlla na la yàlla musal ci pexeb noonu ak pexeb tubaab sénégal képp ku lay jima yàq yàlla na yàqu sénégal maa ngi ñaan yàlla mu dimbali la ba nga mën a sa bopp ndax nga moomal sa bopp sa bopp képp ku musa sàcc sa alal yàlla na ko yàlla toroxal ba mu torox sénégal képp ku la tooñ yàlla na ko yàlla atte ak yow sénégal maa ngi lay ñaanal yàlla élection yi ñu jëm nga fekki ko ak jàmm ak salaam ci jàmm ak salaam nga voter sa candidat ci jàmm ak salaam mu daal di jël réew mi daal lay yor ci anam yi gën rafet amin yow it bu fekkee da am ñaan boo bëgg a ñaanal Sénégal ñaan ko ci commentaire yi soxla na ko trop yàlla na yàlla nangu ñaan. alors récemment Ngagne Demba Touré nekk benn jeune nekk benn élément Pastef nit boo xamante ni nit bu am xam-xam la nit bu pertinant la nit bu mën a communiquer la euh, nit la boo xamante ni nit ñi dañ koy déglu vraiment. récemment dafa def benn point de presse ci biir point de presse bi muy xamle objectif boo xam objectifu Pastef mu ni objectifu Pastef mooy. jëlee nit ñi ci jaamu seen moroomu jaam yóbbu leen ci jaamu yàlla. parce que projet bi nag fal président Ousmane Sonko étape la ci mais li ko tax a jug mooy soppi xar mu Sénégal su ngeen bëggee xam projet Pastef dem leen ci statut parti bi article 5 wala ci préambule bi di ngeen gis lan moo tax a jug Pastef xam nga lan la waxoon naa ko Pikine dama ko fi waxaat mooy jëlee jaam ñi ci jaamu seen moroomu jaam.

voilà j'espère que comprendre ngeen maintenant ñi nga xamante ni ñoom ñoo dagg parti boobu noonu tasaare ko te malheureusement dafa am ñoo xamante ni dañ leen a atteindre dañ leen atteindre ndax ñoom daggit boobu rek lañu déglu déglu wuñu lépp li nga xamante ni moom la waa wax ba noppi génn di def vidéo di wax jàpp ni le fait que ji wax dañ fiy jëlee jaamu nit yóbbu leen ci jaamu yàlla rek mbiru sëriñ la ñuy wax ak mbiru taalibe maanaam taalibe yi nga xamante ni dañuy jox seen bopp sëriñ di ko liggéeyal di ko euh, jox leen seen bopp carrément non du loolu lenn nag dafa am solo mooy tey di déglu te bañ a gàttal sa dégg-dégg ndax loolu boo ko deful moom mooy waral nga dégg tel rek di dam na jàpp naa ni nit ku ànd ak xelam bu dégloo extrait boobu noonu war na xam ni wax ji commencé wul foofu noonu te jeexewul foofu itam nga war a def nank dem gëstu ji ba am ci lu leer door a wax loolu moo loolu loolu mooy li gën e, nit wax dëgg yàlla war nga mën a leeral sa bopp ba ay wax yu lëndam du ko gëlëmal te ñoom waa pastef bu fekkoon loolu moo nekk seen objectif bu fekkoon loolu moo nekk seen objectif duñu a génn di ko wax publiquement ndax dofuñu jinne jàpp leen xam nañ tarixa ban doole la am fii ci réew mi. de un de deux même bu fekkoon loolu moo nekk seen objectif mënuñu ci ñaar dërëm virgule mënuñu ko ci un pour cent mbindeef mu yàlla sàkk ak dayoo bu la yàlla mënti may loolu mënoo koo jëlee ci xelu jaamu yàlla yi boo ko fi jiima jëlee yow yaa fiy jógee ci anam bu metti nag. loo xam ne nag ba muy am yàllaa ko fi saxal te ba muy am jiitu na sa jug di maam loolu boo ñëwee yow pour jim koo dindi di nga ko rëccu. donc nous lo xamanteni xalaat rew mu nek ak ay réalité ñun nak loolu la xam yalla ci bopam fait. ñu wàcceel ay kilifa diine ñu kontaan ci lool di leen top ak xol bu te ñoom japp naa bu doon tok nañ ci rew mi wax dëgg yalla tal nañ lenen amna lenen lu fait. doy di jima dind ay pas-pasu jambour té mu nek lo y yalla mo koy def ci doomu yalla moko mëna dindil de trois mu ubbi parenthèse fi kenn jaamu fi kenn kenn jaamu fi ben benn sëriñ aussi sañu fee jàppee kenn jàmm ndax ñoom ay nitu diine lañ te xam nañ lan la yàlla wax ci doomu donc fii kenn fi kenn ab dañ koy jàpp di ko xoqatal di ko forcer di ko noot di par force loolu moo nekk ab mais ñun su ma nee ñun mooy ñi nga xamante ni dañoo joxe seen nous. voilà ñun nekkuñu ay kenn mais ay taalibe lañu ñun kenn jàppuñu kenn forcé wuñu ñun ñoo suñu bopp dem ba ci sëriñ bi sukk ni ahlamtu nafsi ngir mu jàppale ñu ci suñu jaamu yàlla yàlla ci boppam moo ñu may ndogalu war a am sëriñ war a am wéeruwaay c'est vrai que ñun ñëpp ci yàlla la ñu jëm ci yàlla la war a wéeru mais yàlla moo ñu sàkk te yemale te tolloole am na ñoo xamante ni li ñu gëm mooy nit warul wéeru ci nit ci yàlla rek la war a wéeru c'est vrai ku nekk ak sa gëm-gëm mais yàlla ci boppam daf ñoo sàkk te yemale wuñu wàcce fi façon nit bu nekk dafa am ay nit yoo xamante ni dañoo jege yàlla gëm yàlla Euh, gën la xam yàlla ba pare ëpp la maqaama am ay nit yoo xamante ni dañoo sori yàlla lool ba noppi dëng ni jaan donc dafa am loo xamante ni comme on dit nit nit mooy garabam mu nekk lu leer naññ tey am na benn situation xam nga xamante ni boo ci nekkee nekkul ni yàlla moom moo jóge fële wàcc ñëw régleel la ko yéegaat mais nit ci boppam moom moo la koy régleel ci nit rek la ko mën a jaarale te nit nag wax dëgg yàlla boo amee sa soxla ki la ko mën a fajal mooy ki nga xamante ni moo la tane mais ki nga xamante ni yow yaa wala yéen a yem mënu fajal soxla donc loolu moo tax ñu nangoo joxe suñu bopp daal di nekk ay taalibe ndax xam nañ lu ñuy jariñ kese la ñuy digal yow mi nga xamante ni euh, yow mi nga xamante ni danga nga am salaire di fayeeku nekkul ni yàlla mooy wàcc de ñëw fay la ko directement déedéet da ngay dem liggéeyal nit koo xamante ni am na loo amul ngir bëgg ci moom dara donc c' sa comme ça wéeruwaay wasiila c' est comme wéeru ci koo xamante ni moo la gën a jege yàlla mu dimbali la ci sa jaamu yàlla

buñ la joxee loo xamante ni day aar ay doomi aadama ba pare ñu wëlbatiku di la ci defloo di la ci digal di la ci defloo loo xamante ni day lor ay doomi aadama te yow nga mën a bañ loolu boo ko nangoo def pour lor ay doomi aadama c'est parce que dañ la téye foo xamante ni lépp luñ la defloo dinañ ko def te loolu mooy ak jàmm donc ñoom buñ nee loolu lañ fi bëgg a jëlee je pense que mooy li nga xamante ni moo tax carrément ñuy wax démocratie da ngay nek ci sa poste occupé ko mindeef ak grade bu meunti am ak lu la sut sut sut ci réew mi ak dayom num meunti tollu toll du la mën a ci sa liggéey ay mbir yo xamanteni bëgg def wala waru loko def te ñun loolu lañu ñaan yalla te yalla nañu ko yalla may wax ji nak fofu la ko déggé je pense bien que loolu alors gars yi ba tey ma leen di fàttali Momar Business Attitude nekk benn structure boo xamante il est là pour vous accompagner ci seeni création d'entreprise, entreprise seeni étude de projet seeni business plan comptabilité wàllum transit ak communication marketing d' vraiment expert la dans le domaine nit ñi xam nañ ko ba noppi mu ngi noonu numéro téléphone ma ngi nii euh, mën ngeen pour plus d'informations, aussi mën ngeen ko fekk sur Instagram Momar Business Attitude mu daal di leen di dimbali mon ami mon frère amal jàmm yàlla na sa jàmm yàgg se dund gi am na njëriñ ci doomu aadama sama xarit maître euh, maître sama El Diouf barreau Sénégal daf ko suspendre ci fonction avocat am barreau pour ñu ko xamul mi ëmb avocat yi avocat yi ak avocat yi nek Sénégal yépp lan ñu di koy suspendre d'après les infos moy sortie bari yi nga def dossier depuis que commencé à euh, de Ousmane conseil a décidé de suspendre euh, ci fonction avocat nga exercer métier d'avocat pour l'instant euh, xamaguñu. donc voilà Ce n'est pas une bonne nouvelle pour moi, mais bonne nouvelle par contre si man nak vraiment perso je sais pas ndax yene naa ko wala mais loolu mang ci xalat xawma ndax yene naa ko wala voilà mais dal euh aj nañ ko aj nañ ko xawma kan kañ lañ lay aji nak mais li mom euh aduna ngi ni quoi li mën nañ ci jangé té ku nek aussi mën na ci jangé lu bari. ñi la war a aj rek ñoo lay aj ñi la war a aussi ñoo lay aj euh, dafa am benn policier boo xamante ni ci meetingu Ousmane Sonko bi daf doon daf doon def médiation daf doon waxtaan ak gars yi xale yi di leen dëfal ba xamal leen que moom musul voté ak Ousmane Sonko. Euh, damaa juum Macky Sall nee na musul voté Macky Sall. moom dàq nañ ko dañ ko war a jee complètement c'est grave foofu la Sénégal tollu. foofu noonu la Sénégal euh jang formé wu pour service sa ñu waccé la ci terrain bi ngay xol no calmer situation bi nga wax mbir mo xamanteni peut-être neexu len war arrangé wu len ñu dakk la subhanallah Sénégal yal no yalla defal jamm gaay ñaanal len Sénégal bu baax wax dëgg yalla soxla nako ko de lépp lu way mëna ñaan nako ñaan yalla na yalla na ñaan ñaan len bu baax Sénégal yitté won ay ñaan fi mu toll nii